wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa xadimi wa man ihtara bi hadi lami diin ñu leen di nuyu baax a baax ci ci nuyu bi lislaam di assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu eh, di leen dalal ci seen dëkk seen kër seen daara di am mbégte bu baax ci leeral ci ñetti tomb yoo xam ne nii yu am solo la ci bis bii nekk bis bii nga xam ne dañ koy fàttali ko kenn ci jàmbaari lislaam yi kenn ci jàmbaari Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ñett tomb yooyu mooy bi njëkk mooy euh, boroom barab bi ki nga xam ne nii moom moo sàcc barab bi ñaareel bi barab bi ci boppam ñetteel bi liggéey yëpp borom barab bi fi ngeen nekk nii ci suuf si ngeen nekk mooy daarul xadim ji suuf di kër ci kër sëriñ Touba yi mu sañc ko ci ndigalal sëñ bi digal ko mu sanc ko ci ndigalam ci jamono sëñ bi nekk njaareem ci bokk ci ndigal yi nga xam ne moo ratoon bàyyi ko ci moom jaar ci suñu sàmbkan ni ak suñu fàllu Cheikh Moustapha ak Karim si Moussa Mbacke ñoo ngi laaj jàpp ndigal li sant sañ ci dëkk yooyu yooyu sant moo sañ sañ ci dëkk bii nii Darou Khadim kon barab la buñ sañ ci ndigal am lu ko tax a nag lu tax sañ ko li ko tax a rek mooy li sëñ Touba sañcee Touba moo tax a barab bii ndax barab bii kër la rek ci Touba mooy sanc na ko ngir jaamu yàlla ngir liggéey lislaam ngir taxawu mbindeef yi ni ko sëñ bi leerale ci téeréem boobu ñuy wax mala fosé ni kon bërëb bu ndigal la ko sanc nag di Sëñ Kan ni moom kenn la ci jàmbaar yi yi àndoon la Sëñ Tuubaa di ku ci ràññiku lool nag ci ràññe googu ay firnde moo ci teg yu wér bi mu nekkee mbokkum sëñ bi ci wàllu askan jey ko lool <clears throat> di doomi nijaayam ndax moom si musa bi mooy waajuram si musa bi mooy nijaay sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul kon ci wàllu mbokk dafa sëcc moom rikk waaye nag loolu da ko jaayoon mbokk googu da koo jaayoon jëndee ko ak taalibe jaayanteeg sëñ sëñtubaa ci lislaam jaayanteeg moom ci iraada sadiqa jaayanteeg moom ci liggéeyal boroomam sëñ Tuubaa nangul ko ko nangu mat sëkk yàlla mayoon ko tawféex nag ci sëñ bi tawféex joo xam ne nii ña dund ak moom xam nañ ko seede nañ ko baax a baax ndax ku yàlla mayoon tawféex la ci bëgg sëñ bëggu ràññiku gu wér goo xam ne nii raxu dara gu gu kawe njort ca xam ngeen ne cofeel mooy tànk bi gën a gaaw ci am ngërëmal yàlla yàlla may ko tawféex ci sopp Sëriñ Tuubaa sopp goo xam ne nii gu dëggu la gu wér la gu fees dal ab xolam la cofeel googu ci la sukkandiku ba am ci liggéey Sëriñ Tuubaa bi cër boo xam ne nii kenn amu ko ci ni ko mag ñi daan waxe ne moom day dañ koo xaasal ci Sëriñ Tuuba ngir cafeel gu réy gi mu am ci moom ba tax na mu amoon cër bu rëy ci sëñ bi lool mag ñi mu dëkkalu ndaa ko sedd bu baax a baax xis yu bari ci yooyu xaj na jataay bi gàtt na duñ mën ak ci yooyu xis yu bari yooyu mel noonu waaye moom diggante bu Sëriñ Tuuba moom diggante bu yéeme la bu deewaar la moom suñu sàmba kenn buso moom ak dundam guddul waaye li muy gàtt gàtt jeexal na ko ci lislaam ji rafet xam-xamu sharia bu wér ak nekk taalibu Sëriñ bu dëggu waaye bu ko liggéeyee liggéey bu wér ànd jëf yu rëy rëy bàyyi ko fi ànd ak taxaw mbokk gi baax a baax a baax comme ci côté diggante ak Sëriñ mat na sëkk dara décision moo tax mu am li mu am lépp digganteem ak euh, dëkk bii di Daaru Xadim benn projet la ci ay projet maanaam bëgg-bëgg la ci ay bëgg-bëggam dafa ko sañci ngir ay ahdaaf yoo xam ne nii am mbindam leeral na ko mooy sañc na ko ngir ginnaaw bi am ci ndigal sama sañ ngir mu nekk barab bu ñuy jaamoo yàlla ci tege ci sunna barab bu ñuy dundale alquran barab bu ñuy liggéey la Sëñ barab bu ñuy dimbali ak mbokk te ñeent yooyu mu wax yépp def na ko fi ci dundam ak li muy gàtt gàtt def joo xam ne nii ju leer la ndax bu dee barabu lis barabu jaamu yàlla nekk ko nekk di jaam boromam ni mu gën a mate barabu liggéeyal alquran daara la fi yoroon moom di tarbiya donga di leen defar di leen jubbanti di leen jàngal ba mbooloo mu bari génne ci ñoom barabu liggéeyal Sëñ Tuubaa ay tool yu mag ñoo fi nekkoon ñu di ko bay lu fi génn lu ne jëm ci Sëñ Tuubaa barabu liggéeyal mbokk gi sañcal na fi ay doomi ndeyam ak doomi baayam xàllal leen fi aw yoon ku ne ci ñoom am fi ay barab kon ñeent yi mu wax yépp bu ne am na firnde kon ahdaaf yi mat sëkk moo sañc dëkk bi dund la ko fi yooyu nekk na fi ci dundam ci ñeent yi mu wax benn manqué ci benn manqué ci ci jamono boo xam ne ni nag bu naqari la woon ndax jamono yooyu ndox jàppandiwul niitukaay jàppandiwul aw yoon amutoon euh, bari woon na ay rab waaye yëpp mu teg coono yooyu ba matal li mu lépp kon ku am réussir la ci dundam su mu sàmba kenn ku réussir la ku am najaax la ci dundam ci fànn yëpp waaw li ko may nag mooy dafa daa mel na mar mel mel na na mar mel ci judd bi koy borom tànnal loolu jëf yàlla la waaye mel na ne marmel ci jëf boppam ni ko si borom tànnalee ji boppam mooy xam-xam borom xam-xam mag la sim sàmmkan ni borom xam-xam mag la ay mbindam firndeel na niveau bu mag am ci xam-xam jaamukat yàlla it bu mu at sëkk ak jaam boromam la yu àq boromam bal sëkk teg ko ci sunnat rasulullah sallallahu teg ci nekk taalib xaadimu rasul boo xam ni raxul dara mat sëkk kon moom dañ naan nit insan kaamil la rajul kaamil la bi maanal kalima ci wàllu jëflante ak rafetal ba tey ximma ca ndax ay mbokkam ñooy seede loolu ci rafet jëflante gum jëflante ak ñoom ak taxaw gum taxaw ñamtane lool ak dimbali leen loolu moom xañ na bari waaye lu leer la kon moom ci tënk ak dundam bàyyi na fi ci dundam yu nañ naññi ci jëf yu mag yom solo yu tegte rek matam léegi nag loolu mu baax nga xam ne mooy saw sanc dëkk bi day bëgg-bëggam ci mu nekkoon ko fi loolu ba léegi moo fi dox mu dara xadim ba léegi kilifa yi ko wuutu tàmbalee ko suñ maram mi ab tawam ba yi suñ fal mii nga xam ne ab sëdëm la ñoom ñëpp seeni yitte jàmm kese la mooy taxaw fu lislaam ba mat sëkk ci barab du tumuranke liggéey fi alquran def ko kër xaadim rasul gu mat gu mat sëkk dimbali fi mbokk jullit yëpp ndax mbooloo ñu fi yow moo xam ne ku ne yaa ngi fi jëriñu kon yooyu yëpp mooy moo moo sañ na dëkk bi waaye mooy continuer di wéy incha allah taala mooy continuer yàlla kon yooyu nag yu am solo ndax lislaam loolu kes moo ko tax a jóg nag li muy màgg màgg li muy kaw kay génn yi ma wax nii salaasa bi ñu sañ ci mën na war a bi ñu koy gàddee dem fa yi kese la yóbbu woon ci la yi la réussir mooy tasaare daawa bi gindi mbindeef yi ak ñu mel noonu xam ne ni moo yi réussi ci dundam benn manqué wu ci kon ñooñ kon moom kenn la ci warasatu rasulullah sallam ñu doon yéen kenn ci kenn ci ñoom kon daal ci tënk xam ne waxtu yi comme que dañu bañ mu gudd lool gàtt na waaye mënees na jariñu rek ngeen xam ne ñëw ngeen ci dëkkub jàmbaar dëgg bisub jàmbaar dëgg suñu sàmba kenn ni koo xam bàyyi na yuñ teg baaraam yu am solo yoo xam ne nii mën na ci roy ñi fi bàyyi ñëpp ku ne ci ñoom mën nga am yoon woo jaar wu leer nañ amatul lenn looy looy looy làmbatu ci ci ci moom lim lan lim nekkoon lan la waaw li ñaan yàlla rek mooy li ñaan rek mooy su borom eggalee euh, mébét yooyu di gën a jëm kanam jëm ko kanam incha allah taala di leen sant baax nag yéen mboolem ñi fi teew ci yor waxukaay yi ñu leen sant baax seen taxawaay bu rafet bi ngeen ànd ak ñun ci bis bi di leen gërëm baax a baax ci turu suñu fàllu incha